dal ci xal dese la geneen tëb 24 heures yéen i kaay naan man sàll pareegul ci réew mi wala bugaan géey dana ci critique yéen i kaay naan maa ngi artu l' évidence yéen i kaay naan man moom njiital gëm sa bopp nee na président Sall day bëggam du lenn lu dul seeyal assemblée nationale na ngir des ci nguur gi fii ak 2024 le mandat yéen i kaay naan bugaan ma nga naan député yi bu ngeen nangoo lii sàll def loo leen ngeen def ko day matt seen baaraam su ngeen paree nag daal di wiccax vox populi naan man bugaan géey dani ma ngay defub dessin di xamle nag lan la président Macky Sall bëgg ci réew mi naan ci l'indépendant yéene kaay ay naxee mbaay laa fi gis sàll ngaari lam tooro de di le ci le témoin naan am na njàqare ci li nga xam ni nag moom la président Macky Sall bëgg dugal ci réew mi te naan ci l'exclusif député taxaw yi ak yu parti démocratique sénégalais yéen laay waxal ma ne la lii bu leen ko nangu wotee naan ci le regard bëgg-bëgg sàll ngaari lam tooro burgede du lenn lenn lu nag toogaat ci nguur gi gannaaw 2024 tribune yéene kaay naan man li bugaan géy dañi wax kay maa koy xamal leeralal la ko ndax président Macky Sall dafa joxe ci loxo nday joor waaye lam nu joxo waxoon ñun sénégalais yi da ko bëgg nanguwaat ci loxol càmmoñ gi xam nga président Macky Sall bu taxawee naan leen ma présenté wu 2024 yéen war ngeen xamee ne ay naxe mbaay la lam ñu gëmloo ni bàyyi na nguur gi présenté waat ma ne la gëmu ko xam ngeen lan moo tax président Macky Sall aljuma ji waxul kan moo koy wuutu ci élection présidentielle yi ndax nag bëggul assemblée nationale am xëccoo bëggul sabotage ci assemblée nationale ndax xam na ni bu waxoon kan moo koy wuutu dina am yenn ci député yoo xam ne ñooy gedd wala te lu am nga xam ne bëgg na kut ko kut moom président mak Macky Sall mu jàll loi googee dinaa may député yoo xam ne daañu ko naj bi le projet de loi mani la laal article 87 bu càttum réew mi man naa tax président bu réewum Sénégal seyal assemblée nationale heure bu ko soobee heure bu ko safee te lii bu dul ab njàqare Bougane Gueye Dany ne lu mu ndax loi bi bu ñu nangoo tey jii mu dal di jàll moom président Macky Sall day mën naa seyal assemblée nationale laata 2024 ndax nag bëgg-bëgg président Macky Sall moom moo di daal di boole élection présidentielle 2024 ak élection législative yi su ko defee fekkee nag moom Sall nekk tête de ngir jiite nag assemblée nationale bugaan naan bu ngeen weddee lii may wax yër leen diggante Poutine ak Medvedev la amoon foofu daal moom lañ bëgg ci Sénégal gi léegi nag député taxaw yi ak député parti démocratique sénégalais yi daal mbir maa ngi seen loxo su ngeen nangoo président Macky Sall sayel assemblée nationale la sénégalais yi wote woon ay député ngeen wor leen wan senegal yi ne lañu waxoon ca dialogue ba moo am ab dil la mango ngeen jaay seen bopp jaay seen ngor waxaale politique ak président Macky Sall daal di jël bëgg-bëgg sénégalais lay tàbbal géej yéen ngoo réew mii daal bu ñu nangoo président Macky Sall doxalee ko nam ko bëggee daanaka ay jaamam la ñuy doon ñun Sénégal Doudou Wade ci yéene kaay bi naan nangul président Macky Sall lii mu bëgg ci réew mi daal di koy wote mooy jàpp Sénégal mbuumuk jaam doo nga naan député yi bu leen nangu wote lii mukk ci àddina réew mi quotidien nan leen ci assemblée nationale député yi day boobu tul ma ne la seen nokki gu mujj foofe ma nga fa ndax nag waxtu woo xam ne wote nañu lii wote nañu daanaka seenu arrêt de mort vox populi di ma xamal ne Abdoul Mbaye Mimi Sall ña ngay sàkk ñu bañ a wote la nga xam ne day gàcceel réew mi tribune yéen kaay naan man man la luwaaye sax tey jii bu jàllee ci assemblée nationale jàpp leen ni Ousmane Sonko moom daal dinañ koy tàbbal géej fa yàllaahu Ousmane Sonko ci libération yéen kaay naan assemblée nationale la fay am tey du lenn lu dul nag fas yéene bloqué sama candidature gii waaye nag daal di dëggal yu ñoo xam ne ay dil daal moo ko lal boobu Sall ngaari lam tooro ma ngay xool gannaaw bi mu doon génne ab téere boo xam ne ma ngi wax jaar-jaaram jaare ko ci Abdoulaye Wade ba ci tey mook président Macky Sall daal di cay woolu ca dédicace boobee ba ca Moustapha Niass l'évidence yéene kaay naan man Souleymane Ndiaye bu S2D ma ngay xam le ni président Macky Sall de kum ñu tabal ku ne dañ ca ànd ak moom te kum ñu ca tabal nañu tuba yu fas yéene xeexal ko ngir mu am ndam l'évidence naan man mbaadu Mansour Faye nag dafa bëgg doon candidat laas yéene kaay naan man Mansour kay boo moytuwul moo bëgg doon tofa président Macky Sall ci présidentielle yu 2024 yi Mansour a ngay dëggal boppam ngir doon nag candidat critique yéen kaay naan maan loo ci manti déggit Abdoulaye Daouda Diallo apéris authentique yi moom moom la ñu sànnil xob bu Abdoul Mbow naan membre authentique koo xam ni bokk na ba ñuy defar APR moo war a doon seen candidat waa APR ci boppam daal di ne Abdoulaye Daouda Diallo moo war a doon sunu candidat du doon keneen turbine yéen kaay mel ni ku naan kon lum ci manti doon na ànd ak jàmm ak daal nag Dakar dem dikk ma nga doon amal ab match de gala boo xam ne mook génération 2002 bi la woon lépp nag ci sensibiliser askan wi wax ñoom ci yàq nga xam ne ndaw yi ñi ngi koy yàq yàqal seenug réew ndax nag ci xeexoo yi nga xam ne mujj na am ci réew mi toog nan ñaar fukki fan ak juróom yoo xam ne daanaka Dakar dem dikk dawul bés bu yàlla sàkk juróom fukki million ñu ñàkk ko mu nekk benn milliard boo xam ne dakaar dem dikk ñàkk na ko ci coowoo ak ay woo xam ne am na ci réewum senegal te lii nag ci gafa nguuru Sénégal dong lay daal di bàyyeekoo tribune yéen kaay naan man ki bàyyeekoo ci réew mi nekkee taskatu xibaar ci réew mi ñu sargalee ko ci réew mi mooy Atou Abdou Ndiaye Fall bu Sen TV yéen kaay média bi naan man tabb nañ ko soxna su jigéen bu tasum xibaar bu gën a ëpp xarañte ci réew mi ña ngi ko ko def ci bésu calebasse de l'excellence ba Pape Amadou Mbodj promoteur ba toll ci fukk ak juróom benneelu édition ba xam le ni kat la mu bëgg moom moo di xeetuk cérémonie yi nga xam ne dañ fay jagleele ay prix di fa jébbale ay ndàmpaay di salgal nit ñi waaye tam di wane seenug liggéey bëgg na ca taxaw ca combaxtal ga ca kanam yéenekaay bi di ma xamal ba tey ne liggéey kat ya nekkoon ca usine ba nga xam ne moo nekk ca njaxate te askan wi ne woon day yàq seenug jur liggéeykat ya day ña ñaxtu taxaw nga xam ne usine ba taxaw na ko juróom yi nga xam ne ministère bi dénk environnement waxoon na leen ko respecté nañ ko waaye ba tey liggéeyuk usine ba dafa taxaw usine boo xam ne waa Pout ñoo koy xeex te nekkul ca Pout ma nga ca Kër Moussa te coow li coow li mooy bépp usine bu nekk foofee ma ngay daw ba mu des gi tax ba liggéey yi di sàkku ci autorité yi ñu wax ci ngir liggéey bi daal di tàmbaliwaat foofee balaa làmbaay di ñaaw ci liggéeykat yi l'observateur naan maan barza wala barzaq mi ngi jeexal tu tànk yi di jeexal suñuy ndawum réew ku ko weddi nag demal ba diwaanu Tëngéej am yéenekaay bi naan maan ay xale yu bëri daal nañ fay ñàkk seen bakkan ci géej gi dañoo dem mani la ba nappkat yi nga xam ne ñoo nekk ci taatu géej gi dañuy fori néew fori néew ba maar day taali mool bii ni yenn saay ab doomam boo xam ne fukki at kese la am moo koy dimbali ngir mu suul néew yi ndax nag teer goo xam ne ñi ngi koy teer ñoom xale yi bari lool te lépp barsa wala barzaq moo ko waral ak lu mën mbokk yi ñuy ñaan jàmm tey